mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba tey ci seen ànd ak ñun euh, ci rajo Rewmi FM niki tey itam ci émission gox bi ñoo am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Pape Momar Diop nekkoon fi ancien député nekk itam moon fi nekkoon fi maire bu commune bu Médina jàpp 2009 2000 2002 jàpp 2009 moom nag niki tey nag dafa ñëwaat ci sóobuwaat ci arène politique bi. mel na ni mosoo cee génn ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu euh, politique mi euh, tey nag dinañ euh, ak sunu gan dinañ waxtaan ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum élection locale yi nga xam ni nag moom la ñu dëgmal waxtaanee itam ci commune bu Médina maire bak bilan nu mu ko gisee la cay xalaatam itam loolu yëpp daañu ko dëxëñ tey waxtaanee ko ci émission gox bi ni ki tey en tout cas Pape Momar Diop am nañ mbégte bu yaa tey di la dalal ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM Euh, maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi ñuy déglu. Mhm. Euh, ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. am mbégte teew fii. waxtaan li nga xam dafa jëm ci suñu gox. Mhm. muy la Médina. Euh, di ñaan rek lépp lu fi waxtaanee mu doon njëriñ. pour waa Médina. mu nekk lu am solo lool waaye laata ñuy ñëw ci goxub Médina googule mhm. daanu waxtaan gis nañ fi itam kàddu njiitu réew mi fës mhm. wala sax jub fële nga xam ne moom moo jëm ci Paris mhm. euh, wax ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci mel na ni yenn opposants yi nga xam ni ñoom ñoom moom wax ji daal di wax li nga xam ne moom moo jëm ci xokotal moom du loolu lañ koy def ginnaaw ba mu nekkee opposition ba tey ni mu nekkee ci pouvoir bi loolu nag nekkul loo xam ne nag dafa ci daw kàddu yooyee nan nga ko gisee njiitu réew mi daal di koy fësal. waa xam nga euh, le président de la République Macky Sall comme ni mu ko waxee moom mooy jiite réew mi. Mhm. ñun ñëpp gis nañ xew ci réew mi surtout temps yi nga xam dañ jëm ci ay élections. Mhm. opposants yi ñu ngi bouger lu bari. ñoom ñoo xam seen i motivation. Mhm. Euh, seeti dem na bitim réew fekk fa ay militants. ak ñi nga xam ne ay Sénégal lañ waxtaan ak ñoom. Euh, président nag suy waxtaan contexte bu nekk ak wax yu muy génne. ni mu ko waxee effectivement dëgg la parce que koo xam ni ñëpp xam nañ jaar jaaram ci opposition bi ba yàlla dénk ko réew mi. donc du dem ba yor réew mi ci ndimbalu suñu borom. mu am ñoo xam ne ngay xooxatal pour mu bañ a def yenn yenn action yi. Mhm. donc loolu man dama ci ànd ak moom. Mhm. effectivement est-ce que jàppoon ni est-ce que fa lañ doon xaaree tey njiitu réew mi est-ce que warul woon tey njëkk a wàccee tension bi ci bu waxee noonu ñeneen yi itam nga tontu ci jib ñeneen ñu way homme politique yi itam ci l'opposition bi tontu nañ ko itam est-ce que warul woon apaiser li nga xam ne moom moo jëm ci tension bi. loo xam nga wàccee tension mën naa ne présidence si la dëkk mhm. parce que gis ngeen actes yu bari yi ñu fi posé depuis li xewoon le 8 mars ba léegi. mais président à chaque fois mu ngi wàccee tension bi et je pense que kàddu yi muy yëkkati du luy yëkkati tension mais xam nga opposé wu kii opposé wu ak kii yor réew dafa am une grande différence kii opposé wu lu tuuti rek mu def ci brèche jaar yëkkati ko. pour un peu indi désinformation pour un peu nasaxal xolu Sénégalais yi. Mhm. mais li ci am solo daal mooy ñëpp xam nañ ni Macky Sall bu dul woon xëñ na nitu jàmm tey. réew mi xëñ na du du demee. que duggul ci euh, euh, erreur bi nga xam ne ndëgg sërëx bi nga xam ne opposition bi tegal na ko ci mu ñëw daanu ci. non non ndëgg sërëx dafay wax li nga xam ne moo nekk ci xolom terewul acte yi muy posé weesuwul acte yoo xam ni pour apaiser réew mi la indi jàmm ñu liggéey si jàmm dem ci élection ci ay jàmm ki ya ñi yàlla tànn. ñu jiite réew ñu jiite gox yi si jàmm. Mm-hmm. addu ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum liste parallèle. Mm-hmm. nee na cautionné na yenn liste parallèle. Mm-hmm. ba tudd na sax ay bërëb. Euh, ku ci li ci mel ni euh, Kolda ak Bignona. Euh, lu ciy sa xalaat. waaw lii sama xalaat xam nga président man dama am chance nekkoon ak moom avant muy yor réew mi maanaam ñun ñaañam dañ nekkoon ci parti démocratique sénégalais. dafa lopp ñaar fukki at. xam naa ni ku xam politique la ku xam stratégie politique la donc loolu bu ko yëkkatee ak li mu si expliqué du dem jusqu'au fond parce que ci biir wax ji wax na ni pour ñu bañ a perdre yenn voix yi fallait que ñu yëkkati yenn liste parallèle ci yenn gox yi loolu dama koy nangul parce que xam na politique am na ay stratégie bu teg ngay ñaanal rek loolu nga xam ni xalaat na ko yaakaar ni peut-être noonu lay demee yàlla jaarale ko noonu. Mhm. que à la ñu am ndam. mais tudd na ay liste parallèle mais tuddul benn yoon Mame Mbaye bi nga xam ni moom mooy chef. cabinet mhm. bu njiitu réew mi mhm. euh, ber moom itam listam mhm. ci biir ndakaaru yow mi sax fa nga bokk moo la investir Euh, ci liste boobu nga nekk. Mhm. te nga mën a dem ci jogante yi nga xam ne moom moo jëm ci élection locale yi. Mhm. Euh, tey tuddul maam maam maam Mbaye Niang mhm. am na ci yeneen liste yi nga xam ne nag nee na moom euh, cautionné wu ko. lu ci mel ni itam Mary Teuw Niane génn na wax ne moom. boolewul dara boole ko ci liste parallèle yooyu moom moo demal boppam. est-ce que tey mun nañ xaar ay sanctions jóg. ci ki nga xam ni moom moo di njiitu réew mi jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo indi teg liste parallèle yooyu. waaw xam nga daf ci am question yoo xam ni njiitu réew mi en personne moom moo ko mën a répondre boppam. parce que aussi ki nga xam ni li muy xalaat en tant que njiiti réew nekk njiitu coalition. man damay njort rek mais du ma ci xam lu bari. mais j'en profite bi nga tuddee ma may Niang mhm. dama koy remercier mhm. parce que aujourd'hui mi ngi may permettre sama gox ba ma dëkk ma mën fa dem bokk ci compétition bi. Mhm. di ko ñaanal aussi kay dinañ ci ñëw. <laughs> waaw dinañ ci ñëw ci kanam. Mhm. mais comme que da ko tudd. Mhm. j'en profite pour le remercier. di ko soutenir aussi pour la ville de Dakar. yàlla jox ko ci ndam. parce qu'il a un très bon programme pour la ville de Dakar. léegi ñi ñi ñi am euh, au de au delà de Mame Mbaye Niang li est-ce xalaatoo ni euh, buñ demee ba ca cappaandaw gi buñ gañewul itam li ni mel dina jur loraange si ñoom. waaw bon élection toujours noonu lay demee surtout élection gox goxaat xam nga élection gox goxaat dafa bokkul ak euh, élection législative ni présidentielle parce que affaire gox la hmm. affaire u dëkkandoo la hmm. donc loolu aussi quelque part nit ki bu fekkee da nga am fi nga dëkk mu hmm. wóor na li ña nga dëkkal dañ la jox bopp et yow fa nga nekk choisir nañ la bu fekkee ni wóor na da ngay gagné nga demal sa bopp maintenant président en tant que leader d'une coalition dafa am organisation bu mu am na itam ah. xibaar yi mu ñu yorul moom itam. waaw moom moo koy yor aussi. Mhm, mhm, mhm. ñu tëral ko moom mën na wax ni. nii laa bëgg diw laa tànn diw laa tànn beneen diw boo demee boo gañee xaru boo demul maintenant moom mu xool lu muy jëflante. conséquences yi kon. Euh, ku ci nekk rek booy dem. da ngay assumer après conséquences yi. ok ok loolu mooy politique aussi. wax ci beneen biir itam ci biir semaine bi nga xam ni li nga xam ni moom moo jëm ci. àtteb euh, procès en appel bu Barthélemy Diaz ñu daal di koy woolu ci justice mu war a dem wuy ji laata muy génn këram di yegg mhm. euh, ñu joxe dogal bi ne euh, randal nañ ko ba benn fan ci weeru décembre mhm. gis nañ après li ci jib ndax lu mënoon ñàkk la mhm. non mënoon na ñàkk parce que mooy li may wax léegi rek dañuy wax wala yëkkati loo xam ne jarul yëkkati Barthélemy dafa demoon procès ñu teg ko ay daan moom mu def appel donc lii xew tey ci justice moom moo ko demandé à li nga xam ni moom la procureur wax depuis au mois de juillet. Mhm. Barthélémy xamoon na ni la 10 bi war na wuji tribunal. xamoon na ko. xamoon na ko. Mhm. d'après li procureur wax. Mhm. avocat moom weddi na lool. procureur la wax. man loolu rek laay jàpp. maintenant comme li ma wax rek dañ nekk ci mbirum politique. maintenant ku ci nekk di nga loo xam ni ëllëg. pour que nga am sympathie population yi pour que ñu ñëw jàppale mais man jàpp naa ni lii lu mu demandé la loo xam ni procès en appel la pour que ñu xoolaat procès maintenant renvoyé ba le premier décembre le président mu dem xam nga moom a demandé ay avocat am plaidel ko di ko ñaanal yàlla jàppale ko ci loolu. laata ñuy ñëw si loolu comme moom ñoom nee nañ euh, dañu jàpp li nga xam ne moom moo jëm ci date di novembre boobu noonu. Mm-hmm. est-ce que bañ ko doon jàpp xamuñu woon itam ni élection locale. Barthélemy Dias dina bokk ci liste yi. non parce que bu ñu mélanger lu bokkul xam nga ñun dañu am ay pouvoir ay institutions yoo xam ni bokkuñu lii justice la. Mhm. lii exécutif la. Mhm. donc bu ñu bëggee lier à chaque fois que. Mhm. benn décision am bu fekkee ni sa faveur la nga ni on a une très bonne justice bu fekkee ni du sa faveur nga ni la justice et manipulée. donc aujourd'hui ba ñuy jàpp date yooyu moi je pense que le président Macky Sall yëgu ko mhm. donc justice mooy def liggéeyam mhm. ñëpp xam na ni justice ni muy doxee mhm. te gis ay procès yoo xam ne duré durant des années comme li ma wax rek ñaanal ko mu génn seeg jàmm et que dem ci jona bi ki nga xam ne moom la yàlla tànn mu tànn ko pour la ville de Dakar nee na bi yoon du dellu euh, tribunal fekkee li nga xam ne moom moo jëm àtteeb te moom moom loolu la wax te biralaat na ko nee na du demaat wuy ji est-ce que yow boo ko doon conseillé loo koy conseillé mu toog wala mu dem non ba ma ko doon conseil ma ko wax mu dem wuy ji parce que boo nekkee ci réew ay loi tënk ko da nga xam ne ci réew mi ngay dund da ngay àndandoo ñoom ci ci loi yooyu alaa yow yaa demande à ce que ñu xoolaat sa procès woon nañ la demal wuy ji boo wuyjee say avocat plaidé di ñaan yàlla jox la ndam nga génn ci loolu dem say élection yaakaar nga ni loolu mën na apaiser euh, mbir mi bu demee wuy ji mais absolument parce que alaa kulli haal fu mu wuy ji parce que justice aussi bu la wooyee nga bañ xëy na ñoom am nañ yeneen jumtukaay yu mën a def xëñ na dina yëkkati fitna te ñoom xëñ na fitna boobu moo leen neex parce que man li ma gis ñu doxale ci fan yi mhm. mooy dañu bugg yëkkati fitna. te gis naa ni sax ca ca Medina boobu. Mhm. fa la lépp dooree rue ba. fa la daal di lacrymogène yi daal di tàkkee lu ci bari ak kër gi nga xam ne fa lañ duggoon. Medina googu noonu fa la lépp dooree. kon donc ñu bañ a waaw mais ni ñu ko bëggoon amul. parce Medina bu ñu génnoon du demee noonu. mais waa Medina génnuñu parce que nañu comprendre. foog ñu xam ni politique du violence politique du wax ju ñaaw politique du xasante xam nga politique lan la. Mhm. génneel say idée bu ni ki waxee lii nga indi lu ko lu ko. lu ko boo waxee ci boor bi opposition di nga wax ci boor bële mooy ñoom itam. mais génn nañ fësal seen kàddu ne ñoom dinañ wàcc ci mbedd bi daal di jàmmarloog ñoom. waaw jàmbaarloo bi xam nga ne naa dëkk bi dafa dafa am yoon. Mhm. fa am ñoo xam ni ñoom ñoo tënk yoon boobu muy justice. am nañ non force de l'ordre mais man gis naa image yoo xam ni dama koy ñaawlu di attaquer ay force de l'ordre loolu jaru ko fi jaru ko fi parce que en fait ce qui se passe dans ce pays mooy il faut ñu bàyyi di manipuler population yi da nga jàpp ni manipulation dafa am manipulation la ci ban fànn fukki nit ak ñeent yi ñàkk seen bakkan xaa leen yàlla yërëm xaa leen àjjana amiin amul kenn ku ci am mbokk politicien sax soo moytu wala nga jege politicien donc man loolu laay wooyee manipulation mhm. inciter ay jeunes à ñu génn dem ci loo xam ni des fois ki nga xam ni moo koy wax sa gëmu ko te ay doomu jàmbur lañu xalifa Babacar Sall ngay waxal ndax moom moo biral kàddu googu non xalifa mhm. su may wax rek te yàlla tax xalifa jàmm laa ko mu a xamal moo ne xale yi wàcc leen non mhm. jàmm rek laa xam mus a xamal moo tax wax yi may dégg bi wax nii wax kàddu yi may bett la parce que parce que du loolu moom mooy solution bi solution mooy justice mi ngi fi jàkkaarloon ak justice bi politique bi mi ngi fi on va vers des na ñëpp wàcc ci gox yi. Mhm. te waxtaan ak nit ñi. Mhm. ku ñu tànn ñu xam ni yow ngeen. jàpp nga ni c'est le plus important. Ah, que mais ñu mhm. ñu ñu ñu protéger. nos jeunes. protéger leen bu baax parce que mani yenn manipulation yi baaxul. inciter à ce que ñu dem jàkkaarloog ay forces de l'ordre te ñoom ils ont le monopole de la violence loolu du indi lu loo xam ni. njàqare lay doon ci yenn parents yoo xam ni ëllëg. après dootu ñu gisee di benn pollution ñoom nag ñoo ciy nekk. Mhm. mbokk yi yéen ngi teewlu émission gox bi ci rajo Rewmi FM tey suñu gan di Pape Momar Diop nekkoon fii député maire bu commune bu Médina atum 2009 2002 euh, ba 2009. Mhm. yaa fa nekkoon maire bi. Mhm. tey euh, lan moo tax. ba tey jongante yi nga xam ne nag ñu ngi ciy dem ci atum 2021 bi janvier 2022. Euh, ñu war a dem ci élection tabbu maire yi. Hmm. gox ak goxaan yi. Hmm. nga ne da ngay ñëwaat samp sa ndënd. Hmm. lan moo la lan moo motiver. sa engagement bi ba nga ñëwaat. ne danga nga bëggaat mairie Médina. non sant yàlla rek. xam nga am na loo xam ne fa ma expliquer ko pour waa Médina yi may déglu comprendre beaucoup de choses. ñu ngi déglu wax naa ko keroog bi ñuy euh, lancer ma candidature. au niveau de la Médina. Euh, en deux mille dix neuf juste après les élections présidentielles dans une émission. ci benn rajo de la place j'avais dit que moi dama bëgg nekk candidat Benno Bokk Yaakaar à la Médina. on était en 2019. en 2019. Mm mm-hmm. mais comme ni ma wax man en bon politique discipliné. Mm parce que fi ma jànge politique muy parti bu mag am école de parti am lépp dañu ne bu ñu joxee ay directives il faut les respecter. Mm le leader de la coalition. ne moom mooy tànn ñi nga xam ni dañuy dem ci élection yi. ma jël sama ambition boobu teg fa terewul toujours ma ni man Médina mooy sama ambition. Mhm. parce que fa laa juddoo fa laa yaroo dëkk ba léegi. donc samay yéene mooy Médina gën ci gox yëpp gën a émerger gox yëpp donc ci biir loolu. à deux jour di dépôt de liste xaw moo ni damay nekk candidat xamoo woon ni yow da ngay nekk candidat à deux jours du dépôt de mhm. mais dafa am yoo xam ni dafa tegle parce que am na ñu nekk Médina mhm. y a mon frère Seydou Gueye y a Cheikh Ahmed Tidiane Ba mm -hmm. d'autres candidats qui s'étaient déclarés Pape Djibril Ndiaye mm -hmm. Aram Cissé et Aïda le président a choisi Cheikh Ahmed Tidiane Ba mhm. mais malheureusement man li ma gis ñuy doxale mhm. du noonu parce que aussi nit dafay am yoo xam ni su ko posé rek sa xel dafay teey ci laa toog jàpp sa ñàmb jàpp mais à deux jours am nag ay circonstances yu jóg ma xam ni Medina awma droit wu toog nekk naa fi juróom-ñaari te amul kenn ku ma mën a waxal lu ñaaw ni la def te avec nos maigres moyens yi fa nekkoon am na lu ñu fa def am na bilan bu ñu fa def. Mhm. dalaa ñëw dikk si loolu nan la deux jours yi mel ba nga changé camp nekk. waaw deux deux jours yi dafa am ñu bari ñu ma waxtaanal. Mhm. ñoo xam ni mën naa ne depuis plus de deux ans ñu ngi may toog il faut nga nekk candidat il faut nga nekk nekk seen yéene daal. Mhm. mais yàlla ci mbaaxam def ma dajeeg Mame Mbaye Niang waxtaan ak moom mu ne mën nga utiliser sama quitus donc mu doon dox bu daje. Mhm. donc ñooñ na ma alhamdulilah ku mel ni Pape Djibril Ndiaye nekkoon candidat. Mhm. ci benn bokk yaakaar. Mhm. ñëw rejoindre ñu. ak yeneen sommité yoo xam ne ñu ngi biir Médina. société civile avec des associations. donc ci vingt quatre heures ñu defar suñuy liste déposé ñoo nekk candidat donc candidature la boo xam ni. non seulement euh, bëgg na bëggoon naa ko mais am na nit yu bari ñoo xam ni dañ ko souhaité woon donc loolu ma ciy sant yàlla. Mhm. yàlla ci maaxam mu yombala ñu lépp ba ci vingt quatre heures defar nañ suñu liste déposé nañ ko. Mhm. tey bokk nañ ci ñi nga xam ne dañuy jongante ci. validé nañ sa liste. c'est validé leer na ni da ngay dem ci li nga xam ni moom moo jëm ci élection gox goxaat ñi. incha allah léegi yaa ngi doon wax choix bi nga xam ni jël nañ ko foofu. Mhm. choix bi danga nga ci moo tax nga dem. wala da nga jàppoon ni danga war a croiser les bras. non non choix bi du question ànd ak ñàkk ànd. Mhm. xëy na am na détails yoo xam ni bugguma ci dugg. Mhm. mais itam Medina soxla lañ. comprendre mais dafa am lu ma wax. Mhm. ci njëlbeen dama ne. quand en deux mille dix neuf. j'ai déclaré ma candidature. waaw ah. quand le président de la coalition le président Macky Sall daan ne mooy tànn. boobu laa toog. jàpp sa ñaam. donc président ku mu tànn logiquement dama war a dem ak moom ci élection. Cheikh Ahmad Tidiane Ba la mais bu ñu la tànnee. Mhm. yow dangay xam ñi nga nekkal ñan lañu. toujours moo wax leen yàlla def na Médina benn député maire la musa am muy man plus d' autres responsabilités yi ma occupé politique kenn xam donc mën naa ne ci politique bi ñuy def ci biir Médina. Mhm. amul kenn ku fa nekk koo xam ni mës nga jege responsabilité man yi ma yoroon su ma demee nag ma nekk fa. Mhm. man dama toog ba si yàgg ba ni xëñ na lenn c'est du mépris à la limite. parce que man dañu war a wax ak man waaw mais pas par personne interposée loo tax ma toog jàpp sama ñàmbur parce que loo gis am na fu mu yem. Mhm. mais responsabilité yi ma yore ñoom ñëpp kenn mësu ko ci yore xam naa politique jàng naa ko yàlla dimbali na ma boobu ba léegi ma koy def ci yar ak teggi parce que loolu rek mooy tax nga egg fi nga jëm. mais damay jàpp ni yàlla moo ko dogale woon noonu xëy na dafa namm. Mhm. man ak ñi ma àndal ñu jël si waat pour. Mhm. àndandoo ak waa Médina kon donc euh, maanaam tànn nañ mais yow contesté woo choix bi. contesté wu ma dara. Mhm. mais ber nga sa daara dem. mais ber naa sama daara ak ñi nga xam ni yaakaar nañ ni. bu ñu àndee ak man. bu ñu yàlla dimbalee ba ñu jox ñu Médina. dinañ ko yóbbu fi ñu ko jóg ànd nañ pour dem ci joŋante bi. mais su ma la déggee nga ne fi nga bëgg a yóbbu Médina yow am na. fi ñu fi ñu bëgg yóbbu Médina. waaw waaw. Euh, léegi nga bëgg a ñëwaat jël yóbbu Médina ci bërëb boobu nga am yéene yóbbu ko. Mhm. kon xanaa de atum deux mille deux ba deux mille neuf dafa am loo fa deful woon loo tax. bien sûr bu fekkee dañ la fal. Mhm. ci gox. waaw ah. même bu la falee ci réew munoo def lépp. yow lan nga fa jotoon te il faut ngeen. Mhm. xam benn différence. ñun kant bi ñu yoree maire bi acte deux moo amoon. acte deux oui. léegi ñu ngi ci acte trois commune commune d'arrondissement dama ci dama ci joxe ñaari exemple rek. Mhm. yoo xam ni Médina dinañ comprendre li may wax. Mhm. xam nga bi ñu nekkee ci acte de bi ñu bari xamuñu woon ni marché Tilène li ne ci biir yëpp ville de Dakar moo koy fayeeku. marché Tilène marché Tilène kon daaw leen ci woon am dara. daawuñ ci am dara lu dul li xam ni moo wër marché bi. Mhm. loolu lañ daan fayeeku. assainissement. li nga xam ni bokk na ci li ñu daan gën a ŋàññi Médina tey gi nañ ni. l'état du Sénégal moo yor assainissement et que mi ngi koy exécuter ci biir Médina te projet boobu depuis jur ñu nekk ba léegi waaw donc pour vous dire que am na lu bari yoo xam ni nit ñi comprendre ñu ko woon avant mhm. ñun on était à quatre cent cinquante millions de budget mhm. on ne recouvré que trois cent quatre-vingt trois cent quatre-vingt-dix-sept millions mhm. tey c'est une tey la Médina recouvre donc gis nga moyens yi différence bi ci am mais avec ces maigres moyens arrivé nañu poser des yoo xam ni Médina yu bëri sentiroon nañ ko seen. mooy yenn acte parce que ñëpp xam nañ ni social mooy njëkk jëkk ci Médina mm. bi ñu njëkkee ñëw. waaw dañu ne gis nañ Médina assainissement bi dafa am problème gis nañ ni muy salté bien que am nañu doon liggéey ci mbalit mi. Mm-hmm. en rapport avec l' état mais terewul li ñu jëkk def mooy recruter cent jeunes ku ci nekk ñu lay fay cinq mille francs par mois. Mm-hmm. utal leen ay tëdd ak yëpp ñu nekk ci maire bi dépendre ci maire bi. en appui ñëw di dimbali ñooñu di defar Médina mhm. assainissement bi ñu am équipe boo xam ni guddi ak bëccëg ñi ngi ci en rapport ak ONAS pour soulager waa Médina parce que ñëpp xam nañ ni Médina tuyau yi fa nekk dafa dem ba dafa jaxasoog suuf si mhm. parce que fibrociment la mhm. donc amatul sax ay canalisation ay fosse boo fa nekkoon à la limite donc loolu ñu taxaw ci côté éducation côté éducation dinaay dégg ñu bari naan Médina mosul am site mais ñun site dañ njëkk à la Médina former beaucoup d'enseignants à l'informatique et aux nouvelles de l'information lépp mi fi. Mhm. jël les direct directeurs d'école doté leen de machines informatiques connecté leen à l'internet am une classe informatique à Alassane Ndiaye Alou mhm. loolu dañ ko am parce que dañu amoon un partenaire mhm. à Livorno boo xam ne moo ñu ci jàppale donc fourniture scolaire avec l'acte 2 c'était à la grande ville à la mairie de Dakar de doter de fourniture scolaire école yi nekk biir mais ñun dañ bu fekkee dañuy xaar ville duñu ñu jox te li mu ñuy jox du doy ñun nañ ko jël en charge donc chaque année ñu doon jox école yi fourniture scolaire bu doy boo xam ni deux ans même après dem nañu terewul kaye ak cré yi ñu daan joxe yëpp mi ngi woon foofu ci directeur d'école yi mhm. donc mën naa toog fi wax bilan boo xam ni on avait on a mis mis en place mhm. infirmerie scolaire amoon na fa amoon na fa mhm. ci biir école Médine infirmerie scolaire dotée de tous les matériels amoon nañ aussi dem pharmacie signer des conventions chaque année ñu dégager une enveloppe de cinq millions boo xam ni dañ daan def virement de pour après ku am ordonnance ku ñu war a dimbali secours aux indigents mhm. ñun dañ daan voté cinquante millions chaque année terewul à de chaque fête ñu xool yenn indigents yi mhm. naka lañ leen di dimbalee donc mën naa répéter répéter répéter lu bari loo xam ni mhm. def nañ ko def nañ ko ba ñu fi nekkee construire benn état civil bu bees pour mën mën ma nekk à l'aise mhm. informati bokk nañ ci njëkk informa informatiser état fii après la ville de Dakar mhm. te loolu moo fay dox ba léegi ba léegi moo fay dox ba léegi mhm. bokk nañ ci njëkk a informatiser jël ay jeunes fay leen appuyer ay jeunes aussi ci biir école yi ci lu bari daal donc on a fait beaucoup de ci maigre budget boobu ñu yoon et tout était transparent te acte deux la woon. ci acte deux ñu ngi ci acte trois tey ñu ngi ci léegi ñu ngi ci acte trois. ci mhm. commune bu Médina. Mhm. acte trois bi gi nga gisee tey. Mhm. jàppoon nga nii ba nga nekkee woon ci acte deux tey boo nekkoon ci acte trois. est-ce que changement ba fa war da koy indi yow. mais bien sûr parce que on a on a beaucoup de projet quand je prends l'éducation mën naa tey éducation nañ ko biaisé biir Médina. ci naka. naka nañ ko biaisé parce que je vois que beaucoup d'écoles ont disparu toj ay écoles. def fa des trucs marchands toj ay école def fa ay fourrière donc c' est ce n' est pas ça l' éducation. da jàpp ni euh, éducation ñu ngi koy xaw a nasaxal. biir Médina waaw te éducation c' est la première base. Mhm. parce que éducation si la xale bi di jógee xam lan mooy àddina si na xale bi jóge formé wu pour ëllëg donc loolu lu ñu war a toppatoolu accompagner xale yi defar de très bonnes écoles mais malheureusement du ma ci mën a sori fu ma nekk nii. mais loolu faaw ñu wax itam lan moo tax euh, école bi problème yi sooxe foofu biir Médina ci l'école yi. no loolu loolu ci la bokk. Mhm. loolu ci la bokk. maanaam di ko tëj di ci tabax yeneen yoo xam ne koppar lay indi te ñëpp gis nañ Médina nu muy màggee. xam nga même Médina de mhm. officiellement on parle de mais ñëpp xam nañ ne ëpp na deux cent yokk waaw dafa gën a yokku gën a bëri mhm. donc war nañ xool nag la ñuy ñun autant on prenait même l' des étudiants élèves waxtaan ak ñoom. Mhm. dans des forums wala dans ñoom séminaires ñoom dañ leen accompagner xale. Mhm. xale yi ci biir ci biir école yi. bu ñu wàccee parce que gis nañ Médina nu ñuy dundee. Mhm. xale yi bu ñu wàccee ñi ngi fo ci tali bi donc fallait que ñu am ñoo xam ni dinañ leen jël en charge. y avait école boo xam ni c'est dans la mairie CPD na daan appuyer tous les ans. te gisoon nañ ñun bu ñu fi nekkee résultat yu baax yi nga xam ñu ngi ko doon def bien que ñu ngi koy def ba léegi mais difficilement. donc faut dire yoo xam ne xalaat nañ ko ci éducation au fur et à mesure ñuy dem dañ étaler loolu yëpp pour que Médina yi xam fan lañ par rapport laata ñuy xam fan ngeen jëm mhm. am na équipe bi fi nekk nii tey mhm. euh, mën naa ne 2014 ba tey mhm. ñu ngi ci bopp mairie bi euh, bilan bi yow boo doon xayma tey ñoom ba ñu jëlee euh, bi ba tey ci commune Médina ndax am na yokkute waaw xam nga bilan. Mhm. nit ki moo koy mën a defaral boppam. mais comme li nga wax. waaye yow am yow mi am regard. waaw mën naa ci am mën naa mhm. ci am regard. Mhm. regard bi ma am gis naa ni Médina ñu ngi koy pavé un peu partout. ah tàmbali nañ ko euh, gis nañ dem nañ ba ci yenn euh, waaye yi ñu koy baral. waaw te pavage yi dafa am lu bari lu ci nekk ci biir. xam nga pavage yi li ko njëkk commencé c'est la ville de Dakar. waaw de Dakar moo ko njëkk commencé. après il y a un projet le PACASEN boo xam dafa ñëw appuyer leen. Mhm. c' une très c' chose. Mhm. mais malheureusement ku ci nekk boo ñëwee ak sa ak sa vision. mais war nañ ko mënoon xalaatee neneen xam nga defar pavé ba noppi ñëw ñu koy daaj di defar ay tuyaux ce n' est pas intéressant te Médina xam nañ ni assainissement day ñëw xam nañ ni Sénélec dina ñëw parce que c' est c' est un quartier traditionnel bu yàgg boo xam ni ñu ngi koy commencé di moderniser. Mhm. parce que bu ñu fàtte ni. Euh, loo mën a am programme programme communal état dafa am un programme bien précis te programme mu état du loo xam ni présidence lañ koy defee mais au niveau des commune lañ koy defee moo tax des fois même su ma déggee ñenn ñi di décliner yenn programme yi dafa may jaaxal dama naan ñii est que Sénégal la ñuy yore wala la ñuy yor. Mhm. parce que euh, commune d'arrondissement excusez-moi d'autres communes. Mhm. commune de plein exercice commune démembrement wu état la. dañu ko metre en place. Mhm. pour gën a état gën a mën a jege askan wi. Mhm. donc commune état la. juste bien que am nañ benn autonomie bi mais état la. Mhm. l' état celui qu'on a élu a vision globale pour defar Sénégal. am na vision globale pour defar Dakar donc loolu yëpp il faut nga xam ni état dafa am ay projet dans la commune nga méngale ko yow ak li nga nam def pour sa askan. mais nit ñi il faut ñu xam ni l'essence premier. mooy accompagner nit ñi dans le social. parce que loolu la état soxla moo tax mu ne naa mettre en place des communes pour ñu gën a jege population yi. di xam nag lan la population yi di xalaat nga koy remonter à leur niveau pour ñu mën ko méngale ñoom ak projet yi nga xam ni dañuy ndam def ko ci ci ci commune fu mu toll foofu ci ci commune ba ma ngay avancer am waaw bon mën naa ni am na loo xam ne mu ngi avancer. am na loo xam ne mu jëmee ba ci kanam comme li ma la wax rek sànq. am na looy denc daal. waaw mënuma ci dugg léegi. Mm-hmm. à fond mais ki nga xam ne dañ ko fal tey mu nekk fa. Bamba fal dafa ñëw ak vision. Mm-hmm. am na lu muy liggéey. am na mm-hmm. loo xam ne man d' accord ma ci. loo ci d' accord justement parce que bis bi ma génnee ci maire ba dama ne woon nit ñi ñoom ñooy décider ñoom ñoo fal équipe ya fa ne donc du soppeeku mu. ba man may dugg ci gestion wu. maire yi damay bàyyi nit ñi ñoom ñu xool. gis ñun ni ñu daan liggéeyee. Mhm. ak li fi nekk ñoom ñu apprécier par rapport ak ñi nga xam ne dañuy ñëw. Mhm. lan leen di wax moom lañ nam ma def. ñoom ñu votal leen. kon moo bëgguma dugg à mhm. fond. yenn ci yenn détails yi. mënoo ma wax lan moo changé entre temps mais man jàpp naa ni. dafa changé bariwul. dafa changé bariwul. Hmm. ci naka. parce que lenn rek laay déplorer. mooy quand ñoom bi ñu njëkkee ñëw li ñu njëkk détruire mooy l' infirmerie scolaire non détruire détruire nañu état civil. ba ma fa defoon détruire donc dama toog si ak ma ni lépp loo xam dafa am plaque bi ñu yënd euh, Pape Momar. ñu ngi mhm. koy détruire bi Médina dafa mel ni Pape Momar bi lañ bëggoon éloigner. voilà mais heureusement que am na koñ boo xam ni dama ko tuddee woon sëñ Fallou ak euh, sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké <laughs> maa ngi yal na yàlla yokk leeram kooku moom kenn mënul dindi plaque bi parce que am na ay mbokku taalibe yoo xam ne ñoom ñoo koy sàmm donc yooyu mën naa ci wax mu ñëwee ba ci kanam nag dinaa gën a génne par rapport ak suñu programme. Mhm. étape par étape daan ni ñoom lii lañ fi def ñun lii lañ fi bëgg a def. Mhm. et que di sooxe na lu bari ci biir. ci wàllum infrastructure ba nga fay jógee. Mhm. am na la nga xam ni mbébétoon nga ko wala door nga ko commencé nga ci. Mhm. am ci ndam ba ñu ñëwee ndax gis nga ni tey am nga satisfaction que ni ñoom jël nañ ko eggali ko wala eggul. non parce que en fait par exemple bu ma jëlee rek euh, li jëm ci structure maire bi. nous avons dañoo amoon benn projet. xam nga ñu dañ daan dem toujours Douta Seck di fa luy ay salle. c'était en 2008 2009 juste au moment des élections ne dañuy moderniser l'institution même dafa une très grande salle aménagé ko nga xam ni le conseil municipal des fois nit ñi bu ñu amee ay daje dans la médina ñëw fa dama jël projet boobu jox ko le maire moom maire bi gentiment comme ça non bien mhm. sûr parce que man médina moom ma soxal mhm. du problème mu personne parce que awma problème ak kenn si ñoom koo xam ni day politique médina mhm. mais gis naa ni jëfewuñ ko gis naa ni man la fa jotoon tabax parce que bu leen fàtte ni aussi Médina mhm. euh, dafa doon gox boo xam ni euh, ni ñu ko defee dafa baax d'accord euh, c'est un quartier traditionnel à part le plateau Médina ngay ñëw mhm. l'historique ñëpp xam nañ ko ñu bari plateau lañ jóge ñëw Médina boobu tubaab bi ngi foon woon koñ yi defar nañ ko bu baax lépp defar nañ ko bu baax mhm. mais avec le temps l'assainissement s'est dégradé parce que loo xam ne nga ko prévoir woon pour personnes aujourd'hui plus de personnes ñëw il faut mu dégradé wu mhm. nga xool na koy réajuster donc Médina du problème infrastructure mën nañu wax ni peut mu nga fa def ay aire de jeu xool nooy moderniser yenn terrain yi pour que nit ñi am fu ñuy fooye xale yi am fu ñuy footballé mais loolu yëpp avec l' équipe municipale mhm. da nga ko mën a xalaat xalaatoon nañ ko mhm. mais on a un programme mhm. boo xam ni dañ ko décliner sous peu dinañ wax suñu xalaat lépp ci loo xam ne bi sortant moom moo ko war def nit ñi yow boo doon noté tey euh, équipe bi nga xam ne moom moo nekk tey ci biir Médina seen gestion da jàpp ni Euh, lépp gongo. non pas lépp gongo lépp mënul gongo su ma leen doon noté par exemple sur dix je donnerais deux sur dix. non attends monsieur. mais lépp mënul nekk gongo waaw monsieur nga am nga ne nga ne dix sur dix. ba joxe deux. waaw deux laa joxe ce veut dire que. Mhm. Euh, ñoom ba ñu ñëwee ci mairie bi doon deltu ginnaaw. non néew ma dañu bu may wax dañu deltu ginnaaw. su ma soo dee de. dafa naa mu dañu mhm. deltu ginnaaw. Mhm. dañuy deltu ginnaaw par rapport ak moyens yi ñu yore di ko gérer maire bi xam nga c'est différent ak moyens yi amoon avec l'acte deux. Mhm. avec l'acte trois lu bari dafa évoluer donc lu bari mënoon na mënoon na mënoon na gën a yokk mais malheureusement même gestion bi. Mhm. mais ma lay ñaan rek nga may ma par rapport ak loolu. loolu moo ci dugg à après mhm. après j'y reviendrai. Mhm. ci fan yi nga xam ni moom la ñu moom la jëm ko maanaam boo doon noté. sur dix deux ma leen di jox. waaw deux laa leen di jox léegi yow. ñi nga xam ne bëgg nga ñëwaat. lan ngay teg ci euh, waa Medina. ne leen ñëwaat na. man mi fi jóge woon ci atum deux mille deux. ba deux mille neuf demoon na ban yéene nga am pour bëgg a yeggali. Medina yéene bi ma su ma koy su ma koy tënk rek. Mhm. su ma koy tënk mooy àndandoo ak waa Médina defar Médina parce que am na ci benn projet boo xam ni bi ma jógee ci maire ba léegi daf ma metti mooy mise en place comité de quartier yi. fu toll. ñun bi ñuy gérer Médina réussir ruñ ko woon parce que malheureusement y avait des politiques qui ne voulaient pas damay jël rek benn exemple ñun bi ñuy ñëw ci mairie Médina mën naa ne population yi ñu bari xamuñu woon luy secours. secours mooy ndimbal yi ngay joxe. Mhm. parce que en fait dans beaucoup de bon loolu sama papa amee Dieng moo fa nekkoon. Mhm. moi je les comprends quelque part. parce que même booy gis commune d'arrondissement yi tout au début dañ ko méngaloo nag coordination mu parti socialiste yi. Mhm. donc am na benn gestion boo xam ni man mënoon naa leen ko nangul. c'était pour ñu jege population yi jege seeni militants mais ñun bi ñu ñëwee nañu vulgariser les secours. benn moo ma ni non. lii pour mu am plus de transparence li gën mooy qu'on mette des de quartier yoo xam ne ASC yi dañ koy seq délégué de quartier yi conseil yi dëkk ci gox ba nga xam ni ñoom ci lañ xam ñi soxla ñu koy remonter ñu leen di dimbali. mieux Médina dëkku kilifa la du dëkku caaxaan. dafa am góor yi bari yoo xam ni mënuñu wër ñëw ci maire yi di ñaan te ñooñu ñeneen jege ñoo koy xam mais malheureusement loolu arrangé wul xëñ na yenn politique yi donc loolu bokk na ci. man projet bi ma gën a tenir à cœur mhm. mooy que nit ñi participer participer ci gestion cité bi mhm. te loolu mooy tax commune jëm kanam mooy mu transparent mooy nit ñi xam li ngay def di la indil seeni idée nga ciy waxtaan ak moom xool noonu nan nga koy exercer en rapport avec l' état mhm. bi nga xam ni moom moo yor lépp ak lan encore donc globalement noo xam nga loolu su ma ko waxee tënk na lépp mooy li ma wax léegi li ci des nag on a un programme dinañ wax éducation di santé di et cetera et cetera. loolu nam ci éducation bi nga xam ni yaa ngi doon wax ni euh, am na lu ca sooxe tey. ci biir éducation d'abord mooy njëkk mooy base bi dellawaat yi ni ñu meloon. mooy sa mbébét. waaw dellawaat yi ni ñu meloon xool nooy accompagner xale yi parce que bi dinaa tey di fa xew baaxul on a de am nañ ay ressources humaines yu baax. am nañu ay enseignants yu baax mais malheureusement dafa am accompagnement boo xam ni des na. bon bien que maire bi gis naa ko bon keroog mu ngi joxe fourniture scolaire ça c'est yéexul waaw c'est une très bonne chose bon il n'est jamais trop tard parce que day jëm ci xale yi rek mais éducation wax dëgg yàlla am na lu bari lu jëm bët loo xam d'ici peu a temps mhm. euh, maanaam bëggagoo fësal programme bi lañ ci dëxañ ñëpp waaw liñ ci dëxañ ñëpp mënaguñ mhm. ko fësal mhm. dañ ko bëgg def lépp jébbal ko waa Médina jébbal ko presse ñu xam ne ñun lii mooy suñu yéene ëllëg bu ñu yoree commune bi mais priorité lay doon pour ñun ak santé. Mhm. parce que lu am solo la. Mhm. bu bu waxee itam ci Médina xel yi day dem ci marché Tilène. Mhm. xel yi dem itam ci stade Iba Mar. tey màgget bi euh, bi ak na muy doxee. recette yi mi génne xanaa acte trois bi. am na lu mën a changé lan nga ci mën a indi comme modernisation ci li nga xam ne moom moo jëm. ci marché bi waaw a déjà un projet avec l'État du Sénégal. ñëpp xam nañ ni en rapport avec le CDC bi Cheikh Ahmed Tidiane ba yore. Mhm. ils sont en train de refaire tous les marchés du Sénégal te marché ci leen ci la bokk donc d'ici peu de temps bon élection ou pas élection ci lañ ñëw marché ci leen xool naka lañ koy moderniser ça c' est du Sénégal mhm. parce que depuis mu yenn problème yi ci marché yi ci la l' état ne damay jël en charge tous les marchés je pense que mhm. le CDC commencé na. Mhm. ak yenn marché yi te dina ñëw ci ci marché ci leen incha allah. Mhm. le stade Iba ba léegi xam nga y les jeux. olympiques euh, yi ñëw. Mhm. ba léegi ce n'est pas encore restitué à la commune. ba léegi commune bi géré wu ko. est-ce que mën na nekk sa xeex tey loo xam ne. non non bi nga xam ne. après man gëm naa ni après ces jeux le stade sera restitué à la commune pour que ñoom ñu mën ko gérer pour permettre aux Médinois ASC ak jeunes yi. ñu mën a am vraiment fu ñuy defee sport. est-ce que da nga jàpp ni euh, seen liste bu jàllee ko bu ñu ko ñëwee teg euh, di nga ci am yaakaar ñu jox leen ko. incha allah. Hmm. incha allah loolu moom gëm naa ko. kay ñaan rek ñun li nga xam moom la ñuy présenter médicaments yi. Hmm. yàlla du dugal loxoom. Hmm. ba ñoom ñu gëm ñu pour que ëllëg au vingt soir du vingt trois. ñu ne. coalition Sénégal 2035 moom lañ dénk waa Médina est-ce que dina yomb diggante euh, naam maire sortant nga mhm. Pape Momar Diop mhm. tey ak Bamba Fall mhm. Cheikh Ahmed Tidiane Ba bi nga xam ni tey euh, tabb nañ ko ci euh, tête de liste Benno Bokk Yaakaar ndax dina yomb jeu bi tey non non amul dara loo xam ne day yomb surtout boo jëmee ci compétition da am rek yaxin comprendre nga am mm-hmm. yaakaar. Mm-hmm. dem waxtaan ak. mais premièrement d' abord ci défendre bilan. Mm-hmm. muy Bamba Fall. nara bokkaat ci jogante yi. Euh, même bu ñuy wax ni euh, favori nekkul ni mooy gagné chaque jour mais moom la ñuy jox favori. ndax moom mooy maire sortant bi. Euh, yomb googu laay wax de est-ce que élection yi tey dina yomb enjeu bi Médina bi lan la c'est quoi. waaw xam nga xam nga xam nga. dama la koy simplifier rek. Mhm. xam nga élection compétition rek la. waaw te bii dafa changé. waaw compétition rek day gis ay fas yoo xam dañuy départ ndoo ñu ne kii mooy tokaar bi ñu jékki-jékki de tokaar bi moo raw donc ñun ñëpp Médina dañ dëkk fa dañ juddoo ku ci nekk am nga yéene defar Médina amuñu lu dul ku ci nekk dem seeti waa Médina seeti ñi nga xam ni gëm nañ bu buñ la votelee nga dem lu ci des nag yàlla moo ko yor parce yàlla pare na démb aussi. Mhm. waaw yàlla pare na démb. Mhm. mais est-ce que tey lan la ñuy xaar tey ci Pape Momar Diop xar kanu Médina bi war a soppeekuwaat. Mhm. ci li nga xam ni moom moo jëm ci xal yi communes yi comme ni nga ko waxee sànq rek. Mhm. Euh, en face. Ahmad Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane Ba mosul dem élection c'est une première. mais tey euh, ak engouement bi mu suscité yëpp. ci biir Médina. compétition la de. non compétition la mooy li ma rek ñun moom. am nañu offre dinañ ko jébbal waa Bédina waxtaan ak ñoom wax leen ni ñuy mébét bu yàlla dugalee loxoom rek parce que comme li ma la wax man lépp dama koy mujjee rek ci yàlla mm-hmm. li muy dogal. mais mais itam booy dem élection danga nga xam schéma ba nga xam ni moom ngay demee tey ci nii. Mm-hmm. nii ak nii lii la liggéey fii lañ jëm. Mm-hmm. waa xam nga ki nga xam ne mooy def bilan comme ni nga ko waxee léegi mooy le maire sortant. waaw lui il va faire son bilan. man nekkoon naa fa jóge naa fa depuis 2009 je n'ai pas de bilan a présenter à part nit ñi xam nañ man la ma fa defoon ba pare. Mhm. maintenant yeneen candidats yi ku ci nekk danga am sa offre rek booy def si population yi. Mhm. mais man jàpp naa ëllëg suñu offre moom la nit ñi di choisir incha mhm. allah. ndax da nga jàpp ni te mooy bi gën ci Medina. waaye man jàpp naa ne mooy bi gën ci Medina parce bi gën ci Medina. Mhm. mooy àndandoo ak waa Medina liggéey ko parce maire ak équipe am rek. Mhm. mënuñu liggéey Medina. Mhm. il faut personne ressource yëpp ñëw. ku ci nekk génne sa xalaat wax nga dem ci conseil de quartier di jëli seen i xalaat. yooyu yëpp boo ko tënkee. àndandoo ak ñoom di nga bëgg ci Medina di nga am avec l'appui de l'État. conseil de quartier ban euh, yitte la am ci commune. bokk moomeel hmm. bi war a di diisoo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di maire bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko teewal ci gox goxaan yi parce que hmm. dañuy dégg faral souvent baat boobu conseil de quartier hmm. Euh, mbébét bi lan la xam nga conseil de quartier mooy une gestion participative rek parce que mën na ne day doon conseil municipal bis xam nga tey dañuy ni ñu ko organiser mooy dañuy defar des listes gox bu nekk xëñ na nga jéem fa jël kenn koo xam day représenté gox boobu ci biir conseil municipal mhm. mais bu la yàlla demee ba dénk la li gën mooy li ñuy tuddee conseil de quartier nga dem ci quartier bu nekk ba naa nga diviser ko par exemple en dix parties nga xool délégué de quartier ya fa nekk xool ASC ya fa nekk xool conseil ya fa nekk xool notable ya fa nekk nga boole leen organiser leen structurer leen mais ñoom ñoo la gën a xam li xew ci biir quartier bu ñu ko waxtaanee tëgg ko ci kayit ñëw indil ko conseil municipal bi à partir de là dina dimbali même le maire pour muy proposer budget moo xam moom lay yore maire bi mhm. donc loolu laay wax loolu mooy indi participation population yi xam nga participation population mënoo ñëw leen maire ba wax ku am idée na def déedéet da leen di organiser à la base mhm. les organiser à la base mooy nga mettre en place des conseils de quartier loo xam ne lu formel lay doon nga xam ne bu ñu dajee benn yoon tous les trois mois wala benn yoon tous les six mois baax na mais ñoom dinañ xam jafe-jafeñ bi nekk ci quartier bi dinañ xam ni ñu war a jàppale nit ñi ci benn façon. te li ci gën kii mooxloo xam ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ma ña nga toog fa ñu toog parce que mënuñu ko wax kenn te loolu aussi maire yi loolu dafa bokk ci ay mission donc loolu dina dimbali. ki nga xam ni moo fa nekk ak équipe ñu xam naka la ñuy def ba aide yi ñu yore. pour jàppale ñu jàppale leen si. ak aussi organiser jeunes yi. parallèlement. voilà justement xool yan formation moo gën si jeunes yi. Mhm. en fait foofu laa bëggoon ñëw saw ci maire yi. Mhm. Mhm. mooy du maire yi day jël di financer ay jeunes. parce que ñaar maire yi démembrement yi de toute façon de telle façon que ñu mën a jëli financement yi au niveau de ça mën nañ am. organiser am des personnes ressources humaines ci biir maire bi ñuy defar ay projet mhm. ñu leen di orienter di waxtaan ak ñoom bu ñu paree orienter leen vers yi nga xam dañuy financer. pour que ñu mën a def loolu yëpp. parce que maire loolu la mën. est-ce est-ce Euh, mën a saytu euh, jafe-jafe ndaw ñi wala sax soxna yi nga xam ni. Mhm. financé wuñ leen comme ça muy yegg ba ci suuf ñi si mën a jëfandikoo. voilà dafa mel ni li may wax comprendre loo ko gis nga conseil de quartier yooyu mooy indi loolu xam nga tey bu ñu mettre en place des conseil de quartier am. des personnes des ressources mhm. humaines yoo xam ñu ngi ci biir mairie bi di lijjanti di ci projet jeunes yi mhm. ñoom ils vont descendre vers les conseils de quartier mhm. concerté wu am ñoom xool en rapport ak jeunes yi fa nekk yaa nous des étudiants nous avons des élèves xool nu leen di orienter vers des métiers d'avenir yóbbu leen nag vers l'état central parce que moo détenir en fin de compte financement yi nga xam ni mën na dimbali. Hmm. réellement jeunes yi ci biir Sénégal. ah loolu am solo la. waaw léegi euh, li nga xam ni moom moo jëm ci Medina ba tey moom la ñuy desandi. Medina hmm. euh, googile euh, naam. Euh, ba nga fay jóge acte deux la sànq wax nga ko ak par rapport ak tey acte trois bi. Mm -hmm. jamono di dox tey ba ñenn ñi maire yi ñu sant leen ñuy demal seen bopp. Hmm. Euh, naam lu baax la. am na programme bi fi jub junj nga ko sànq. Mhm. Pakasen. Mhm. est-ce que jàpp nga ni. Mhm. mairie bi nga xam ne tey moom moo jiite euh, ki jiite tey euh, Médina. Pakasen bi. lam ci jubloon xam nga pakaseen da ngay wax ni lii laa bëgg ñu jàppale rek ci loolu est-ce que jàpp nga ni la mu joxoñ ba ñuy war ko ci joxal jàpp nga ni foofooy solution ba non mooy li ma la wax si njëlbeen xam nga tey bu ñu la fare ñun bu ñu ñëwee dañuy ñëw ak suñu vision dañ toog ak suñu conseil municipal ne fii la ñu jëm lii la ñu bëgg peut-être moom loolu la def jëm ci euh, pavage yi donc loolu nangul naa leen ko seen seen vision la. est-ce que moo doon solution bi tey. non du du ma ne moo doon solution wala euh, solution la wala du doon solution. Mhm. parce que comme li ma la wax rek ñoom dañu yor seen équipe municipale toog. xëy na jamono ba ñuy indi pakaseen mhm. ñoom jàpp nañ ni pavage yi moo gën. mais ñun avec notre programme ëllëg. dinañ fexe ba définir ay priorité loo xam ni ba financement bu ñëw dañuy xam ne fii la jëm. Mhm. boole ci même avec uti ay partenaires. Ah, waaw waaw loolu domaine bu am solo la parce que dañ naan euh, euh, bokk moomee yi. Mhm. Euh, boo leen waxee benn yoon rek dañ naan amuñu moyen. Mhm. amuñu ressources yu bari. est-ce que dañu war a toog itam croiser les bras rek mu ñëw fekk leen si nan la ñu war a def. non doo doo toog rek xam nga avec l'acte deux. lu sax ma ciy jël ci toujours parce que nit ñi dañuy dañuy dañuy mélanger les les les deux. les deux te waruñu ko mélanger. Mm-hmm. avec l'acte deux ñun dañ daan voyager dem uti ay partenaires. Mm-hmm. mais avec l'acte deux pour nga def benn jumelage da ngay ut benn association à la Médina am benn association en France. Mm-hmm. mu pare ne ko mu pare na mais léegi c'est différent maintenant l'État permetre na comme ñu ci ay partenaires mais terewul état def ko encadrer ba léegi. parce que xam nga euh, gestion bu demee noonu. Mhm. su ko état encadré wul rek day am ay dérives. Mhm. donc tey état gën nañu renforcer gën ñu may autonomie boo xam ni mën nañuy dem jëli des partenaires loo xam ni état day dugal loxoom ci biir pour gën a mën développer la commune. Mhm. te loolu yàlla dimbali nañu bu ñu nekkee ci maire bi même à wax naa la avec waa Livorno. on a fait beaucoup de trucs à la Médina. doon dimbali ci ay classes informatique euh, avec des yu nekk France am nañ ci beaucoup de trucs mais ak l'acte trois bi. Mhm. moi je pense que bu ñu ko yoree ak li nga xam ni xam nañu ko ci. Mhm. ak ñi nga xam ni lañu liggéey en rapport ak ñoom. Mhm. dinañ am beaucoup de partenaires yoo xam ne ñu li pour que Médina mën a mais yow jàpp nga ni acte trois bi ngëneel la mais am na ñoo xam ne safaan ba lañ gis da nga leen di dégg ñu cee faa ciy wax. Mhm. ne acte trois bi ñëwul lu dul créer leen ay jafe-jafe. Mhm. maanaam salaire yi nga xam ne nag ñenn ñi dañ ko doon coiffé di ko fay léegi ñoom lañ koy jox ngir ñu koy fay. Mhm. te dañuy jooy ressource yaa ngi koy wax léegi partenariat bi ci biir euh, ci biti. lu am solo la mais am na ñu muy gaañ. xam nga loo mënti gis il faut ñu évaluer ko. ñaara mhm. li xew li xew Sénégal. Mhm. mooy désinformation daf fi bari. Mhm. te malheureusement le politique dafa mën a désinformer xam nga acte trois dafa indi ressources yi bari communes yi tey boo jëlee hôpitaux yi nga xam dañu nekk ci biir commune yi nga xam ni dañ leen ko jox en charge ñuy fay les salaires. mais les hôpitaux son organisés ils ont des commité de gestion ci biir mais ils se gèrent eux-mêmes ci yenn dépenses yu bari. Mhm. donc lim état di indi yëpp di ko jàppale commune bi mën nañ fay salaire yi mais malheureusement dañuy nekk ci pays boo xam ni je me rappelle bi ma nekkee assemblée euh, Iba Der yàlla na ko yàlla yërëm di xaari ko àjjana dañ doon liggéey ci lu bari pour def l'évaluation de l'acte de dama jël rek benn boo xam ne ba léegi kenn du ko tudd Sénégal. mooy ban te mooy indi problème yëpp ci commune bi. Mhm. mooy les budgets des communes. suñu nomenclature budgétaire. méngoowul ak commune nu muy doxee. xam nga loolu ci gàttal mooy lan. Mhm. mooy da ngay si budget bi par exemple ñëpp xam nañ ni communes yi tam xarit day ñëw yenn fête yi day ñëw dañuy jënd ay nag di joxe lépp mënoo ko fuure ci biir dépenses diverses mais des fois da ngay obligé euh, dem jënd nag facturer bic mais loolu mooy indi porte yi indi vers des détournements de deniers publics donc loolu. ñun dañ ci doon wax di ci wax te ba léegi état waxagu ci te loolu man bokk na ci yi may njëkk soulever. Mhm. bu ñu yàlla denkee commune mooy revoir suñu nomenclature budgétaire méngale ko ak communes yi ñuy doxee au niveau des base parce que besoin bu base bi bokkul ak besoin bu nekk ci sommet bi. Mhm. donc bii ñi ngi ko am depuis communauté urbaine nga xam ne ñoom lañ daan gérer tout en même temps. bokk la bi nga xam da nga ko dénk ay commune nga xam dañuy gérer totalement la base mhm. donc suñu nomenclature budgétaire war nañ ko xoolaat mhm. pour méngale ko commune bi loolu dina inciter à ce que moo mhm. am une gestion encore plus transparente boo xam ni ñëpp dañuy xam li nga xam ni moom mooy moom mooy xew léegi di nga bëgg a jënd bic dem facturer leneen même boo ko defee de façon honnête de façon honnête buñ lay auditer normalement dafa waroon doon loo xam ne dañ ko war a signer comme euh, observation. mais gisoo itam état bi acte trois bi euh, ñi ci gën a favoriser mooy ñi bokk ak moom langue. ci naka. opposition parce que boo xoolee fii Grand Yoff dañuy dégle rek maire bi nga xam ni tey opposant la fa. Mhm. dañuy ŋàññi rek dañ naan acte trois jafe-jafe képp lu leen indi. Mhm. nga xool méngale ko keneen ki nga xam ne nag bokk na ak moom mun a jàpp ni nga neen am na fa. Mhm. mooy li ma am na kàddu yoo xam ni du ma ci mën a parce que ça ñi nga xam dañ koy yëkkati man damay wax rek li nga xam ni moom mooy ligne bi état tracé. Mhm. bu fekkee état dafay yor ay communes décentraliser les pour jógee population yi. Mhm. mu am des personnes yoo xam ne dañ leen fal mu am un maire. Mhm. li war état mooy muy yamane yëpp. bu defee leneen du li ko war. mais par rapport ak ñoom li ñuy wax je n'ai aucun moyen. pour xam ndax dëgg la wala dëgg. mais jàpp naa ni li nga xam ne moo war état. te man njort naa ni état lay def. mooy yamale toutes les parce qu'en fin de kon population yëpp l'état moom moo leen di gérer. Mhm. te loolu moom mooy seen. ci ñu ñu ñëwaat ci gis nga ni dépôt de list yi. Mhm. candidat indi woon na pëccoxoo yu bari. Mhm. boo xoolee diwaan yu bari sax dañu rejeté woon seen liste. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci commandement territorial bi. Euh, daanaka juge yi sax. wala dañ leen xaw a maanaam euh, rejeté. ci seen sàkkuteef. jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di. coalition ak parti politique yi dëgg ci wàllu wi ni mel. Mhm. est-ce que jàppoon ni woon abi amoon na ci mbir mi ba ñuy déposé. noo amul abi man j'en profite pour euh, vraiment féliciter ñi nga xam dañu yor euh, mooy les préfets les sous-préfets. commandement parce que mm. liggéey bu metti la. gis nga bu fekkoon dañuy teg yoon rek liste yi bay nañ ko rejeté mais man depuis may organiser élection PDS ba fii gis naa ni ñoom ils ont eu beaucoup de tolérance beaucoup de tolérance la preuve déposé nañ ici le jeudi mais ba vendredi samedi ba lundi nit ñi ñu ngi dem di jël ñuy dem di photocopier di di légaliser ji te loolu yëpp am na si yu bëri dans le code motif de rejet la mais ñu nañ boobu tolérance xëy na nag bu amee yenn kii yi nga xam ne dafa ëpp ñoom dañuy rejeter mais li may dégg nii maa ngi koy doog a dégg ci élection mais avant wax dëgg yàlla mhm. oppose ñun ñi ngi nekkoon ay mais ngay sax dangay ñëw ñu ne non du nii nga koy defee demal defee ko dama ko defee nii mais malheureusement ak élection yi dafa bari beaucoup de nouveau ñoo xam ni xamuñu élection nu muy tëddee et malheureusement du ñu laajte. da nga jàpp ñi ñu résulté nga man ku mel ni man. Mhm. mel ni man. Mhm. mardi 17h laa xam ni dañuy dem ci élection yi nekk candidat mercredi lañu doon waxtaan ak yenn association yi ak yenn jeudi matin lañ commencé defar liste yi avant minuit pare nañu déposé nañ suñu liste. donc loolu xam ko ak xam pratique bi la. Mhm. mais malheureusement élection yi dafa bari beaucoup de nouveau yoo xam ni. mais boo ko xoolee itam ki nekk fële ca diwaanu Kédougou muy Moustapha Guirassy itam. Mhm. ancien maire la. ni mhm. yow. Euh, defar na listam ba suba sax lundi. lañu war a xool ba xam listam dana jàllam déet. est-ce que euh, jàppoon ni moom loo jàpp ni ki nekk maire ba ñëw def listam jàppoon itam foofu ñàkk expérience la de. non xam nga il faut nga def une différence. indifférent xam nga nit ki mën nga nekk maire te doo pratiquer politique xam nga ku nekk ak yàlla li mun a li mun a séddee. li mun a cërale bon xaw ma réellement lan moo wund rejet bi ñu ko rejeté mais ci mbiru expérience nit mën na nekk maire du am yenn expérience politique yi wax naa la ko ci njëlbeen ne ñun dañu bokk si ñi xam ni dañ leen formé ci partie mhm. ñu dem école libérale nga xam da ngay pare ñu jox la sa diplôme wax la lii ak lii ñi ne ñi ne demee mhm. yàlla mooy seddale loolu mhm. donc loolu moo tax ñu am pratique bi boole ci ba nga xam ne yenn yi dinañ xam naka la ñuy jaar ba mu tegu ci yoon xaw ma lan moo tax ñu rejeté giraas yi mhm. may ñaan yàlla moo am ndam sa mën a dem parce que nekk na fa maire xëy na population yi bëggaat nañ mu ñëw nekk maire mais peut-être am na lu mu wën a def ba loolu ñëw mais avec les tribunaux xam ne ñu gën a tolérant pour bu fekkee dafa am manquement mu mën koo mottali. pour que mu mën a dem ci élection yi. kon que dafa nekkoon maire. ñu jeexalee Dakar. Mhm. am na Mame Mbaye Niang validé nañ listam. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr Benno Bokk Yaakaar itam validé nañ listam. Mhm. Barthélémy Diaz validé nañ listam. Soham Wardini itam. mu nekk maire. Mhm. yore woon fa remplacé woon xalifa Sall ñetti at yi itam. Mhm. bokk na ci liste bunt bi. Mhm. ñoom itam fasal nañ ko. validé nañ candidature yow ngay jàppal tànk Mame Mbaye Niang lan lan ngeen war a indi soppi ci biir Ndakaaru ba ngeen jàpp ni seen liste euh, war na mën a jàll. waaw xam nga Mame Mbaye Niang maa ngi wax léegi il a un bon programme pour euh, pour Dakar. luy changé. parce que bi nga njëkkee wax turam. man dama koy remercier parce que il ma il m'a permis mhm. man ak ñi ma àndal ñu mën a dem élection dans la Médina mhm. parce que toujours di may wax jàpp naa ni élection locale mhm. du élection président du élection ministre élection keneen élection waa gox ba la ce n'est pas une affaire de parti ni de coalition waa gox ba ñoom ñooy daje seen biir xamante nañu fa lañ dëkk fa la ñuy yeewoo waxtaan seen biir ñu xool koo xam ne wóolu nañu ko am yaakaar si moom ñu far ko donc bu ñu amee koo xam daf ñu permettre à que ambition boobu ñu am ñu mën a am yaakaar ni yàlla bu duggalee loxoom ëllëg nañ ko exercer. Mhm. duñ def lu dul di ko remercier. Mhm. am yaakaar parce que am nañ occasion discuter ak moom. damay jël benn benn exemple je n'ai pas lu tout son programme mais mhm. benn exemple rek boo xam ni il l'a son programme par rapport ak location yi. parce que pour moom c'est inadmissible li nga xam dafa xew Dakar. mooy ku bëgg benn néeg ñu ni quatre mois courtier bi moom moom lii ak location yi nu voté dañ ko assemblée mais gis nga suivi bi jaaru fi mu war a jaar donc bu fekkee ne dafa am un maire de ville boo xam ne dafa bëgg jël loolu en charge je pense que moom dina ci taxaw ba ëllëg Dakar dootu dootuñu am yenn problème de location lu état mënul topp ba mu euh, mat sëkk. Mhm. nan la ko ville bu Dakar mën a toppeete ville moo ci war a gën a jekk ak commune même à la limite parce que ñoom ñoo gën a jege population yi. ñaa la état di tax mu créer toutes ces entités. mooy gën a jege population yi kiy jege population yi moom mooy gën a mën a surveiller li nga xam dafa xew ci biir koñ yi hmm. xew ci biir kër yi état voté na mais suivi bi amul te état mënul en même temps surveiller tout ce qu'il fait bu ñu amee un maire de ville boo xam ni dakaar lay lijjanti moo hmm. am loo xam ni état voté na ko moom dina veiller à ce que ëllëg sax ñu gën a wàññi location yi pour que nit ñi hmm. parce que ñëpp ma yàlla mayul ñëpp doole bu ñëwaan kër. Mhm. wala ñu dëkkuwaay yi gën a yomb pour que nit ñi mën a. am nga yaakaar projet boobu antu bu ngeen faloo ngeen daal di koy mm. jëmmal. incha allah te day antu. Mhm. parce que mën na nekk parce que tout au début avec mhm. avec tous ces a. mais aujourd'hui avec un maire de ville. appuyé par des maires de commune je pense que loolu mën na mën na nekk mën na jàll waaw donc di ko ñaanal moom it yàlla may ko ndam parce que yéeneem bari na quoi. Mame Mbaye Niang gulet moo war a dem ci ay élections ndax ak ñeneen ñi nga xam ni boo ko xoolee par rapport ak ñoom mhm. euh, lu mooy boo ko ci génnee ki nga xam ni moom moo di Soham ni mosul samp ndëndam dem élection mhm. ci ville bu Dakar waxuma commune bu Mermoz mhm. Barthélémy Dias ñoom ñëpp presque ay novice ñooñoo war a dem bëgg a dem jëli Ndakaaru Euh, yow mi nga xam ni côtoyé woon nga ci maire bu dakaar mhm. euh, dakaar charge yi fa nekk ndax yomb naa jiite. waaw parce que j'étais même son cinquième adjoint. mu ngoog te booy wax rek yàlla tax il avait un fait un très bon bilan parce que Dakar il a un budget boo xam ne mën nañ defar Dakar. fàtte nañ itam Pape Diop. waaw Pape Diop laay wax. Mhm. j'étais cinquième adjoint au maire du temps de Pape Diop. Mhm. il est dans la course. Mmh. donc xam na luy ville de Dakar xam na luy mairie parce que yor na ko durant sept mmh. donc ñeneen ñi peut-être ñoom ñoo ay novice mais Pape Diop du novice. Mmh. mais gis naa ni projet bi nga xam ni moom la Mame Mbaye yore encore une fois bu suñu borom ci ndimbalam def ba waa Dakar wóolu ko fal ko. Dakar dina gën a changer xar kanam. bien que ñi fi jaar ñëpp ku ci nekk am na loo ci def. muy Pape Diop muy commencé si Mamadou Diop. ci Pape Diop. di Khalifa Sall ba ci waa dina ku ci nekk am na loo def parce que nit ki mënul def lépp. Mhm. mais yéene mi nga xam ne Mame Mbaye am na ko. je pense que bu ñëwee mën na ful loolu. Mhm. ba Dakar waa yëpp gis seen bopp ci ville de Dakar. soulagé leen ci lenn ci mode élection bi. Mhm. ni ki ren atum déwén atum deux mille euh, janvier deux mille vingt deux. raw gàddu la bii par nekkul ni conseil yi. léegi ñooy fal différence bi yow mi nga xam ni nekkoon nga maire. Euh, ay conseil fal la. ak bii bi nga xam ni dafay changer. ku ëppale sa morom benn voix yow yaay nekk maire changement bi lan moo ci sa xalaat. non différence bi c'est important man dama lay jël rek sama exemple bopp. Mhm. mais li je fait en vingt quatre bu fekkoon ni avec l'ancien système la du ma ko mën a def. parce que ay calcul ay calcul da ciy nekk. Mhm. mais li ma njëkkee ak ñi ma àndal. mooy am na nit yi moo gën a jege boolewuma leen ci liste yi. parce que façon bi ñu bëgg gérer maire bi après. nekk conseiller ñàkk dekk conseiller di nga bokk ci gestion bi parce que ce sera une gestion participative et décentralisée. Mm-hmm. donc li ñuy def ni moo gën parce que l' système ce n'est ay complot la woon. parce que ñenn nit ñi dañu jàpp ni bu ñu voté ba ci cappaandaw ga yow mi nga xam ni yaa nekk ca bopp ba. Mm-hmm. mën nga bañ a falu. te ay lobby la ñuy créé. defar ko xew na fi ba tàyyi xew na fi ba tàyyi. ba dalu la. non non man malheureusement bon loolu. heureusement donc man musuma musuma dal bi may bi may falu mhm. mais li nga xam ni parce que toujours nit ñi am na kenn ku ñu am yaakaar ni euh, bu nekkee maire mhm. euh, bu bu ñu leen voté kookoy nekk maire mhm. mais avec l'ancien système dañ daan am yaakaar mais gars yi ci benn guddi rek mën nañu salfaane ñëpp ak seen i pratique yoo xam ni bon kon système bi raw gàddu gi mooy bu baax bi non mooy bu baax bi wax dëgg yàlla nit ñi xam nañ ñu bu ñu falee liste bi diw bi mooy nekk maire boobaa yi ñooy tànn Mhm. mais dootul conseil en général. li ñu cërale woon ci waxtu Pape Momar Diop jeex na. Mhm. en tout cas am nañ mbégte euh, dalal la fii daal di waxtaan ci li nga xam ne moom moo jëm ci Médina. Mhm. gox baak nu mu tëddee. que lan ca euh, di fàttali ne nekkoon nga fa maire atum 2002 ba 2009. nga bëgg a sampaat sa nënd itam la nga. deful woon nga hmm. bëgg ko ñëw yeggali. Hmm. Euh, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk waaw man maa ngi lay gërëm d' abord. li hmm. ma permettre ma wax ak médinois yi ak ñeneen même ñi nga xam ne ñu ngi dëkk di ñaan yàlla rek li ñu dugg si ci bismillahi rahmaani rahim. génn ci alhamdulilahi rabil def attention. suñu devoir bu njëkk. mooy éduquer ndaw yi ñu àndal. Mhm. parce que ndaw boo àndeek moom bu ko saagaloo bu ko wax loolu ñaaw. Mhm. lépp loo xam ne dégg na ko boo xam dafa jóge ci nit bu mënul répondre. Mhm. ci euh, yar ak teggin. vraiment war na mën a noppi. parce que ëllëg loolu mooy suñu avenir xale. donc élection yi nañ ci dem ci jàmm. génn ci jàmm comme ni ma wax si tànk rek yàlla pare na dem mais ñu ñaan yàlla fekk li nga xam ne moom la dogal ci Médina mu doon. coalition bi nga xam ni moom la ànd ak moom muy deux mille trente cinq. Mhm. muy ci Médina muy ci Dakar. Mhm. ñaanal ñëpp jàmm di leen sant encore une fois. Mhm. sant waa Médina yëpp. di leen gërëm di leen sant. parce que Médina dëkku kilifa la du dëkku caaxaan. am na solo yàlla na jàmm yàgg. te defal ñëpp jàmm. amiin te waa Médina li nga xam ne mooy seen yéene. suñu borom defal leen ko.